bésub keroog lañ ko jalax bu wéy géej ñu naa ko leena sànku ngir dangaa néej bànna ne leen fudul fu yàlla nekkul mbaa du mu wute loole daal laa nekkul asalaamaaleykum mbokki taalibe noo ngi leen di nuyu di fàttali sunu bopp di leen fàttali màggal si ak màggal dañoo nuróotu bokkuñ màggal manis na ko defe fudul Tuuba boo amee ngant boo defee ay bernde yéene ci màggal li sëñ Tuubaa bis bii santale ko yàlla rek def nga ndigal li waaye màggal si nag da ngay sa dëkk wala sam réew ma nga ne woon ñëw ba Tuubaa defee ko fi waaye boo màggal see itam anam anamu màggal si yéen wi dafa mat a bàyyi xel ndax mën ngaa màggal si ba noppi doo màggal moo tax li nga fiy nekkee ak ni ngay màggale dafa mat a bàyyi xel. mooy war ngaa bernde donte gan nga bu mënta ren di it nga seet loo jox ay nit ñu jariñoo ko wala ñay def loola nga jox leen dara ñu def ko ca kon def nga le sëñ bi santaane woon te mooy bernde waaye doon gan kese ñëw rek toog ñu di la ganale neex na lool baax na lool ci ki ki nga koy defal dana ci am tuyaaba waaye yow mi ngi koy defalee ndax bernde nga kon da ngaa déplacé wu ñëw ngir màggal si waaye jëmmi màggal nag ndax defagun nga ko. kon japp na ne donte ganar la nga jënd ko joxe ko ñako yoyo donte ay gone la wala ko tassal ci mbedd mi wala julit bo meuna gis nga wun njëgg ga jox leen wala nga ren di jox leen wala ko koy def nga jox ko mu defal lako ci ndax da nga magal ci waye jëmmi magal nak moy bernde kon ku ñew war nga def lolu wala ñakoy def nga fas ko ci jox leen ñu defaaleel lako lolu moy magal kon luma ta xel kato kerem këram nag te am ngànt te mënta ñëw te sëñ bi ne fu mu fekkati ab taalibe wala ko xam sama mbég sa mbége nang ma santale yàlla ci bis bi li tàmbalee ci ganaar ba ci gilem kooka bu rayee rek ganaar ba ci gilem lu mu ca rey te jublu ca bernde mu jariñu ca moo ko njabootam ak la ko jege yépp ñu xewlu ca yëg ne bis bi jot na kooka fu mën a ne màggal na am maa nag ndigal li nga xam ne alaaji Fallu moo ne woon ñëpp ñëw di ko ku ko def moo gën fuuf nag ku ko defut ndax boobaa ñaari ngëneel ngay am màggal ak màggal si waaye bu màggal see nag war nga màggal màggal nag mooy bernde bernde boo xam ne la koy gunge mooy jaamu yàlla yu doy sëkk jàngal xuraan jàng xasida lépp lu baax nga di ko def waaye jëmmi màggal gi nag mooy bernde kon ku ko defu gutit nga xam ne lii mooy màggal mooy bernde wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu وجهك وكالجار ونجي